tirage bi moom man pour l'instant du ma si xaw a sori trop. je préfère vraiment bàyyi ba ñu am tirage bi ba pare ma wax mais tey comme nu ma ko waxee suñu jour yi rek ah lu ñu ñaan yàlla mooy ñu am si tirage bu abordable mais est-ce que tirage bu abordable vraiment existé na coupe du monde. donc euh, ci loolu loolu xamee mooy que war nañu préparer wu à toute éventualité. ça veut dire que nu mu bon bon bon bon bon am euh, soi-disant grande équipe encore comme nu ma la ko waxee bu dee est-ce wax ni que équipe bu ndaw amatul éliminatoire coupe du monde bi wane nañu ko bu dee Macédoine tey moom mooy dóor champion d'Europe boo xam ne mooy Italie ça veut dire que petite équipe amatu fi kon ñëpp a war a en tout cas coupe du monde bi ñun dinañ fa dem te te suñu demoon foofu demuñu fa ak complexe dinañ fa dem sans complexe parce que yaakaar nañ ni que war nañ fa mën a def dara te loolu yaakaar boobu nag du ci ay wax rek que ci ay jëf-jëf ay jaar-jaar ñu am depuis sept ans huit ans loolu moo ñu pousse ba nga xam ne yaakaar nañ ni que ni ah bu ñu demee ci coupe du monde bi war nañ fa mën a def dara compétition bu mag la compétition boo xam ne la grand joueurs yi grand sélectionneurs yëpp ngi fa Qatar lay nekk mu nekk vraiment rendez-vous en tout cas ñun on est pressé vraiment d'y aller et incha allah vraiment fas yéene def a mag a ñaan yàlla nag ah tirage au sort bi mu nekk tirage au sort boo xam ne bu abordable la et à partir de là ba écoute dinañu mën a discuter waxtaan vraiment ci ci équipe yoo xam ne ñoom la ñu war a jànkoon kool